au soddu Daouda Sandwich ndaysaan au soddu ak Daouda Sandwich ndaysaan Daouda Sandwich ngeen jàkkaarloo rakk la ci fëgg la bu Lansar ndaysaan xale tarkindaa la au soddu ndaysaan Moussa Ndoye ko indi doomu yaraax la ndaanaan la ci làmb ñoom ñaari xale yi ndaysaan boo xoolee combat bi nga xam ne ñoom ñaar ñëpp am na fu leen bis Daouda Sandwich jiital tànk ndi joor door na au sorti door na kubu dal ña ngay xeex Daouda door na ko jàpp na Daouda daan na ko Daouda Sandwich daan na ko sodd Daouda Sandwich daan na ko sodd kàggu kaay Daouda daan na ko sodd Daouda Sandwich daan na ko Daouda maa sandis. bàyyi man kii moo la gën a xam mbër daa man. daaw da ma waxal ni nga bëree koom andi. daaw da ñëwal. di benn benn. daaw da benn benn. da bàyyi ñaari. daaw da ma ko. ni nga bëree daaw da. benn benn benn benn. daa taxawal ma xam wuyu ma eh, pare. daaw yi di def loolu booy ma si jàpp dama lay duma barki yàlla. mais dellusi ma ci ni nga bëree au ba daan arbitre si nga mën a tekki déglu nga mën a tekki di ma déglu. xëy daa bëggoon mu gaaw mu ñëw si laa mu jël ko si daw song ma man encaissé naa kuwam pour lan jàkkaarloo moom xeex ak moom mu daw xeex ma song ma si laa ko bal tëral ko. damaa laaj Moussa Ndoye léegi ma jël ko. Moussa Ndoye ne ma. Moussa Ndoye ne ma ma ni Moussa ak euh, ki nga xamante ni mooy euh, euh, Daouda Sandwich daa mel ni yow ak Feugueleu la mu ne maa mën Feugueleu la fuuf te booy bi dina ko wane booy bi nag daan na damaa xamul ba xam dina jël Feugueleu bëriwut ak moom taxe lay jël. Moussa Ndoye taxe lamb la Moussa Ndoye lamb dàq ko barki maam Cheikh saa te sa ko daan instant bii nii non Tapha Mbeur laay xaar Tapha Mbeur Ada Fass ku daan na ñëw <laughs> leer na